samedi ni ki tey jii nag seen rubrique fuglu gàmmu dina waxtaani ay ponk yu bare bari yu aju ci wàllum wàccaay wi mu bokk ca wàllu organisation tente bi wàllu koom-koom service d'hygiène ak seen i ay matukaay waaye itam nag daañu dalal kenn ci borom xam-xam yi muy Cheikh Nouruddin ñas mbokk yi asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci seen ak rubrique fuglu gàmmu fuglu gàmmu fuglu gàmmu ci Alfayda FM ku wax nag dundal gàmmu ci senegal sam xel daj Maulana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass ni mel nag di firndeel euh, mbëggeelam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne feeñ na ci bépp fànn ba ci mbindam Cheikh Nouruddin Niass di ñu wax li ko yéem ci Baye. waaw li ma marqué moom si Maolana Cheikh Ibrahim bëri na lool parce que Baye kenn dafa amut ak moom si nazmam ak nasram maanaam bindam wéyam ak wesaram si lépp nag arabiyatu Maolana Cheikh hmm. amut ak kenn mbëggam si yonent bi tam amut ak kenn hmm. doy na ne si diwaanam bii am na ku ñu mas a nettali muy Baye Thiam Seyna boobu ñu ngi Azhar mu ne benn docteur dafa jël diwaanu almaari hmm. abul ala almaari jël diwaanam di ko jàngat. yéemu si lool lool lool. ne kii est ce que am na ko maanaam def loolu dafa defoon nañu tuddee luzum ma la loolu dafa jafe si euh, mm-hmm. chehrul arabi mu ne mu ne am na ku mel noonu bàyyi ci am ne ko waaw gis nañ ko mel mm-hmm. ku dàq ne ko kan la mu indi ko dabaa wi ne ko kii kan la mm-hmm. kii arab la mu ne ko du arab africain la mu ne ko kii gisuma ko mel ne moom si way te loolu ni ko kookook defee égyptien boobu am na benn soudanais bu nga xam ne naaqid adabi kabir la moom tamit loolu wax na ne Mawlana Cheikh Ibrahim li mu taggee noonu kon nag kon baytam yëpp am waaye nag rawatina xoolal bëggal gi mbëgg yonent bi xoolal li mu wax fa man raama darkii fi istiyaaqi nabiyina raama amran mustahalan mu ne képp koo xam ne mi ngi sàkku pour jot ma si sopp gi ma sopp yonent bi kooku da ne ko sàkku na mbir moo xam ne lu impossible la te loo xam ne dafa xaraam maanaam lu mënta nekk mu ne la ka man raama maskal badri yow man bi usbin mi ngi mel ne ku bëgg a laal weer wi xam nga laal weer wi <laughs> loolu yombut bi usbuin si si yow a delloo الوصف aydan qad aksaru walakinnahum qad gaadaru mutaraddama mu ne mi ngi mel ne ku nga xam ne dafa bëgg a jot melaw yonent bi yaa ngi dégg mu ne ñoom borom waykat yi bëri nañ lu ñu wax si yonent bi muy Busayri muy Kaab wa gayrihim wa Hassan waaye mu ne ku mel ne ñoom liñ def lépp ànd ak ne banañ fa lu bëri loo xam ne man Mawlana Cheikh maa war a ñëw rek réparé ko defar ko mutaraddama lu ñu war a defaraat la yewanal ko mu ne la nag fa asartu xubbal Mustafa duna gayrihi man baaxee damaa jël yu bëgg bëgg a gëla yonent bi def ko mu gënal ma lépp lu duur loolu mu ne walaw umu kalsumin walaw kaana mariama dalee umu kalsum la dalee mariam moom daal am solo wane ne fi màgg si bi parce que ku bëgg yonantu ba say doom di la ko gën wala say soxna kooku bëgg na yonantu bi mu ne nag fa wallahi maa fi l qalbi xawdun li gayrihi maa ngi gëñ ne amul nekk sama xol bi lu dul la yonantu bi nekk mu ne fa xayru rasulillahi laysa li taalama man xaw ma ku may muhammad sallallahu alayhi wa sallam gàmmu googee ñuy fuglu nga xamee ne ayu bés moo tee ñu daal di cay àgg jamono ji nag commission d'organisation ba ñoom i tamit nag liggéey liggéey bu am solo liñ ci bëgg nag mooy teel a ci liggéey bi soxal wàllu organisation organisation waaye itam tànt baag nañu ko war a doxalee ngir nag taalibe yi mën a amal gàmm gu mucc ayib Baba Niang njiital commission d' organisation ba àdduna ci ak Cheikh Tidiane Diagne. di leen ndokkal ci weeru yonent bi ñu di ko fuglu di am yaakaar ne maa ngi fii ci jumaa ji di am bu ñu tey ñu gàpp ne gàmm gi la quinze la incha allah rabbi ñu ngi ci wàccaay bi te fi may taxaw di wax ne yaa ma fekk maa ngi préparé pour takk m bi ñuy def ci jumaa ji tuddee ko Mouhamad Idrissa Seck xaar ni li ma bëggoon ñu takk ko xam ne bu ñuy commencé mooy rek lampe bi tàkk waaye xam nga instant bi jamono yi nawet dañ nekk dañu ul ampoule yoo xam a ak waaye Révolution am na ko ñëw dañ ko commencé installé ñu ngi ci préparation yi nag ba nga xam ne bu taalib yi ñëwee dinañ ñëw toog tranquillement ba nga daal euh, li mu ko yàgg def am naa xalaat boo xam ne proposé na ko le maire Serigne Mboup ba jox na ma ko def boo ko seetloo tente bi ñaari espace yu nekkee gauche ak droite mooy mbedd kër Mame Seye Mélnès bi ak mbedd kër ak six écrans géants yoo xam ne dafay nekk ci hors mbayal bi nga xam ne képp mënuta am accès ci biir mbaar bi soo ñëwee mën nga am image ci biir mbaar bi yëpp moo xam ne yow mi àggut gis ko ci écran yi am naa yaakaar naa fii le douze wala le loolu dana yemb ba ñu ko nag na ma leen ko junjee woon ñoom nag waxtu wi tàmbali nañu seen ak liggéey soxal wàllum saytu gi ci wàllum jënd meeg njaay mi wàllum ndox meek wàllum lekk gi lu mooy loolu itam ñu ne nag daañu ko àndaleeg ñaax askan wi jëmee kon ci wàllum cet geek cell gi capitaine bu Touré mooy chef brigade bu Kaolack bi ay kàddoom ci waxukaayu Alioune Badara Diop. liggéey bi door nañ ko depuis euh, lundi passé parce que xam na ni li ñuy xaar moom vraiment bari na te temps bi aussi dafa gàtt. dañuy am ay activités parce que activités yi dafa activité de contrôle euh, de la qualité de l'eau boo xam dañ koy def au niveau des ménages di xool euh, dans les points de restauration xool ndox mi ñu utiliser ndax ndox mi baax na am na ñuy appareil yoo xam ne appareil d'analyse d'eau moom la ñu yóbbu def ko fa di xool paramètre physique ak paramètre chimique de l'eau yi di xool aussi paramètre aussi microbienne yi de l'eau yi koy yooyu yëpp dañ koy xool dañuy ñëw aussi surveillance euh, des points de restauration di xool ñoom naka la ñuy def ak légumes yi ak seen lavage des mains af dañ fay teg ay kit de lavage des mains conseiller aussi ñi nga xam ne ñoo gérer restauration bi ñu gën a saytu gën a di raxas seen

parlementaire parce que actuellement nii dafa am ay saay-saay yoo xam ni buñ nee ay euh, gàmm wala ñu wax tabaski wala ñu wax euh, màggal dañuy profito di jël seen produit yi nga xam ne dafa périmé di ko jaay te ñi koy jënd ñu ci bari ñàkk jàng wala ñu xamuñu sax temps pour contrôler les dates de péremption yooyu yëpp dañ koy xool ca wàllum prévention boobee soxal wàllu wér-gi-yaramu pèlerin yeeg askan wi ñu fii fekk ñoom nag waa service d'hygiène bu Kaolack bi ñu ne jël nañ ca seen i ay matukaay capitaine bu Touré ba léegi gën na koy leeral bu neex Medina talibé ñi fa ëpp duñu ay sénégalais mm. talibé ñu ngi joggé dans la sous région te motax nak actuellement ni waxtaan nañu ak sama directeur de la santé moy euh, docteur bari waxtaan nañu ba am ben dispositif bo xamni dañ ko tek ci ci frontière bi ci kër ay waxtaan ak fds waxtaan ak commissaire fa nek ak euh, capitaine douane ak ñi fa nek yépp waxtaan nañu ak ñom sensibiliser len sur la maladie ba paré def des dispositifs de lavage des mains ku fa ku dugg fofu da nga raxasu ñom aussi dañ leen ar ba nga xamni jangoro bi nañ ci mëna parce que jangoro bi nek na jangoro bo xam xam ni muy wàllee aussi dafa nekk euh, par contact interhumain il faut mu laal la wala wa par exemple mën nga ko am par inhalation par exemple mu nooy nokki yow nga mën koo am mais distanciation boobu aussi dañ ko war a continuer comme ni ñu doon def ci Covid bi rek parce que Covid bi ba léegi mi ngi fi aussi Covid bi mi ngi fi moo tax nit ñi aussi dañoo war a moytu aussi def comportement ba ñu amoon ci Covid bi ñu gën koo am di takk ay masque nag moytu bu ñëwee ci gàmm bëgg nañoo def beneen saupoudrage boo xam ni xam ni dañuy dugg ci euh, caniveau yi def délarvation pour mën a rey euh, ferñeent yi nga xam ni moom mooy par exemple wallax njaan yi nga xam ni ñooy doon yoo ëllëg ci caniveau yi beneen bi aussi bëgg nañu aussi def saupoudrage boo xam dañuy saupoudrer li nga xam ni li wër Medina Baye ak lew naña seen ci jamonoy ak gàmmu nag xam ngeen ne wàllu njënd ak njaay da ciy am doole lool lu ni mel moo waral opérateur économique bi lee di El Hadji Fallou Ba jàpp ne nguur gi war nay gën a yokk taxawaayam ngir gën a ñoŋal Kaolack tax koom gi gën a yaatu lool. wax dëgg yàlla man xam naa rôle économie bi nga xamné mom la gàmmu di jouer rôle bobu nak nam opérateur économique am nañ ci responsabilité mais état bi ci bopam mo ci ëpp responsabilité parce que buñ né économie il faut nga créer environnement favorable pour booster l'économie lolu nak jàpp na ne état li wolof di wax rek bu tan goré won buñuy gubali mu ëpp ci say waaye état retombé yo am ci dëkk bi une grande partie la ca kon lepp lu mëna def ba créer environnement propice favorable fexe ba manam investir sur investir Kaolack su ma nee investir Kaolack defar assainissement Kaolack cadre de vie Kaolack parce que Kaolack yàllaa atte ak dayoo Cheikh Ibrahima Niass kooku doonatul nit koo xam ne wax dëgg yàlla defe naa ne bu ñëwee Kaolack ni ñuy xoole Medina al munawar noonu la ñu war a fekk Kaolack ni ñuy xoole dëkk yi diine yu mag a mag yi noonu la ñu war a xoole Kaolack parce que limité wu Medina rek ci Kaolack yaakaar naa gis-gis bu ndaw la Medina wax naa ko waxaat naa ko dina moo boot Kaolack Medina googu boot Kaolack nag ci la état bi war a sukkandiku nag hmm, ci politiciens yi fi jaar Abdoulaye Wade rek laa gisoon mu comprendre lu mel noonu parce que moom panafricanisme la bi muy soog a jël réew mi ci Medina la sukkandiku woon pour boolee Afrique que buñ nee Afrique comme niñ ko gisee ni Afrique dañ ko xaaj ay pàcc pàcc pàccal su ma nee pàcc pàccal dama naan CEDEAO bu ñu ne CEDEAO c'est les quinze boo jëlee Nigéria rek moo ëpp quatorze te ku ne bàyyi ne Nigéria kon tubaarkal la wax dëgg yàlla war nañoo xoolaat bu baax a baax a baax état bi laay interpellé ma mbokk yi ñu sant leen gërëm leen foofee la yemandi ci pàcc ba ñu tuddee fuglu gàmmu jox leen dig daje ci beneen jotaay bu ni mel